muy sëriñ mortal yàlla na yàgg yàlla na wér fekkee moom na fekke lépp loolu nag kuy ñaan suñ borom comme léegi waxoon nañ ni yàlla moom lu ko neex lay def kon ñu ñaan ñu ñaan loolu yàlla na fekk lépp da ci des mooy ñaanal ñi nga xam ne ñoom lañ daan bokkal bâche bi ñu daan taaral barab bi léeg-léeg kenn wàññiku loolu nag ñu fàttaliku suñu borom séeréer mbay dàgga France du nag yàq waaye nga beddi na ko sëriñ Tàkko Mbakke moom sëriñ Fallu bi ngay dugg léegi la sëriñ Moustapha mii moom Alaaji sëriñ Géy doon wax ca sa sang bu baax ba naa kenn xamut lu mu yow nag Mbakke lii moom jaaxal nanu maanaam mbirum sëriñ Fallu jaaxalaat nanu jaaxalaat nanu ndaxte kii la yebal mu fekk fii doomam mu bëgg seere ba xam lii li mu doon ñun de jaaxal nañu ñun de mbàkki ñu ngi la koy laaj bu nuppee salaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu ngi nuyu laaj yi Cheikh Tàkku Mbàkke dafa mel nii moom jataay bi miin na ko bara boobu Cheikh Mamadul Fadal la ndax barabu Cheikhul Xadim la kon sëriñ bi kàddu yi sant rek ci lañ tolloon dañoo waxtaan loolu sëñ Fallu nag ñu wax ni mënuñu cee waxtaan ndax xamuñu lum doon ndegam moom mënuñu si ndax moom nee na du talibe du sëriñ du seex du doom ju bëgg baay doom baayam kon man dama xamul ci nu may waxtaane ci moom moo tax rek ma jël benn baat ci moom rek mooy xamoon naa ni ku mën a muñ la ma wax ne nañ nañ ko nañ ko bu jubu jubuti ñu jub ñu jubanti ko baat loolu rek lañ ci jël muy leçon boobu daal mooy kenn ku nekk nga fasuwaat te xam ni euh, li nit ñi bëgg muy lu baax yombut dee su ko wutee ci ay tappaleeki caaxaan dangay nekk ci dëgg rek te nangoo nangoo muñ suñu borom dina la nattu waaye bu natt yi teggi ko rek cant rek a cay topp inna baadal usri yusra kon kàdduy cant yi nga xam moom la ñu sëriñ bi e, santoon ñu jëmale ko ci njaboot gi ak ñi nga xam ni ñoom lañ bokkal bis bi kàddu yooyu rek lañ bëggoon a eggale ci teewaayu sëriñ bi dafa mel ni kon cant yi cant yu jóge ci xol la ndax am na seede kon cant yooyu ñu njëkki woon ko ñaan ñaan gi dañ koy dégtalaat sëriñ bi ngir ñaan gi dañ ko dañoo ñor muy sunu kilifa yu baax yii fi nekk sëriñ Mor suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko sëriñ Seexuna mi nga xam ni moo fi nekk di sunu sag moom mu sax rek waaw te te mbir yi di gën a neex gën a law gën a yàgg loolu lañ koy ñaanal chantier yu dul egg yu dul egg mukk kon li njëkk ci cant yi mooy ñi nga xam ni ñoom lañ bokkal barab bi ñooñu nag damay tëb ñi nekk ci dëkk bi jiital ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal tund wi ñi fa ñëw tey di waa Màkka Saar wax naa leen ko léegi ni leen xam ngeen ni ñoo bokk barab bi ni ngeen jàppe kilifa gi gis nañ ko loolu dafa mel ne ñun ngeen ko defal waaye du ñoom rek ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp sëriñ xaadim tudd leen léegi waaye sëriñ bi bëgg ñu jaaraat ci ngir mu xam ne li ñuy wax li ñuy wax ñor na ko moo tax ñu leen di tuddaat muy waa kokki waa Makassar waa kër maxaali waa kase waa kër demba ma lay waxtu nekk lañ koy yëkkati te pas-pas mu am ci dëkk bi rek moo ko waral ak yéene ju mu am ci barab bi kon siin dëkk yi nga xam ne ñoo wër dëkk barab bi yëpp dafa mel ni mbir mi seen mbir la kon loolu sëriñ bi gis na ko du tey rek du bisu gàmmu gi rek waaye ci lépp lu fi mën di xew kon cant yooyu bis bi nga xam ni mooy bisu badar bu ñëwee war naa jóge ci làmmiñul sëriñ naa mu jëm ci ñépp ñëpp yëg ko dëkkandoo yi dëkkiin wi rafet na jàppin wi rafet na kon sëriñ bi mu ngi leen di seedeel kàddu cantam waa badar ñoomam mbir mi xëy na dañ leen di sant ngir ñaax leen waaye ñoom it dafa mel ni barab bi bi fi sëriñ bi di jóge ñetti nag ba ñeent la daan rey waaye ci ci ci waañam lay nekk ñépp ci lañ daan xewloo tey na dafa mel ni bi ma bi may dox ba dajeek moor caam yeew nag ñu ne ma ibra caam yeew naw nag sëriñ badar caam yeew naw nag li li sama li li li maanaam euh, fi sama xol egg ci sedd mënuma ko wax nit ñu waaw ndax kon xam nga jeg jëli naa ñi nga xam ni ñoom gëm nañ ni mbir mi seen mbir la waaye dafa mel ni kon ñii xam nañu li ñu ànde woon fàttewu leen ko ñu nit fàttewuñ ko yàlla na yàgg ba booba ba booba ba booba ba booba ndax ci loolu lañ ànde woon dañuy ba nga ak sëriñ Mayib ànduñu woon ci ab tëgg ak nangam sëriñ bi dafa amoon lu muy dox kii am bëgg loola muy lislaam ndax sëriñ bi du ànd ak keneen kenn ci lu dul lislaam kon ci loola la duggee woon ci moom kon bu leen ko fàtte mukk ñu ànd ñu ànd ci loola ba booba ba booba li ci topp mooy sëriñ si nga xam ne ñoo fi nekk ma jiital ci alaaji Cheikh Takku Mbakke mii nga xam ni moo nekk sunu di wëlërewu sëriñ Cheikhouna di sëriñam di xaritam wëlëre woowu ak xaritoo googu ñun ñëpp mu dugal ñu ci loolu nag kàddu cant la yoo xam ni bu jugee ci moom war naa jaar ci ñun waaye kenn ku nekk amel na la ko ndax yemul ci seen diggante yéen ñaar rek loolu nag njaboot gi yëpp xam nañ li may wax loolu li muy wund it mooy dafay samp boo xam ni benn la rek ñun ñëpp ñu xam ni lenn la woon rek mooy li Serigne Saliou doon wax léegi loolu loolu moo jëmmal lépp te loolu nag lépp dafa delluwaat ci kenn ka muy Xaadim Moustapha mi nga xam ne mënees koo jéggi mënees koo ronu mu xam mëneesuta xam nooy nooy def ak moom boo demee ba egg si moom da ngay taxaw kon ñu dem ba ci moom ni rëkk taxaw duñ ca duñ ca boole dara duñ ca rax dara wutiwuñ leneen lu mu amul doyal nañ sëkk kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax ci kàddu sëriñ bi matul nag waaye nañ la sant sëriñ am sa jóge na fi léegi di sa mbokk moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kon jataay bii nga toog moo ko toogee woon léegi dafa mel ni moom doyoon na waaye dafa mel ni rek du ngeen ci doyal ñu ni duñ ci doyal bu ñëpp ñëwoon rek ñu ni duñu duñu doyal mukk kon sëriñ bi mu ngi mu ngi sant sëriñ am sa moomu nga xam ne moo fi nekkoon te bokk ak ñun bis bi te xam naa xat-xat yi nga xam ni ci la nekkoon waaye terewul bis bi jaral ko loolu sëriñ Abo sa kilifa xam na ne di nga ñëw waaye ñor gu ko bis bi ñor moo tax mu jiital sa doom muy sëriñ Abo jiitu na la fi te doyoon na sëkk ñëw na fi teewal fi sëriñ Abo sëriñ Abdul Ahad Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Abdul Ahad mu ngi ci jotaay bi miin nañ ko fi di wala réew sëriñ seexu naa waaye di jëmmal di taaral bis bi sëriñ Abibu niñ ko waxee léegi rek duñu tay ji di ko wax euh, ndax kóllëre gi dafa rafet waaye kóllëre noonu ko sëriñ am sa waxee woon ñaar a koy dox bu ko kenn di dox bu tayee bu toogee rek mbir ma dog waaye mel na ni moom lépp nag ci mbir mi sax moo koy dox far benn euh, sëriñ Baara ak sëriñ bi benn la kon ñoom ñëpp rek cant gi di dugg ci biir cant googu sëriñ mamoor sëriñ Moustapha sëriñ bi dafa maa wax ne sax mën nañoo wax ñaan nañu rek bàyyi ñu ci des waaye ku ma ci fàttewul saw tur rek dinaa la tudd waaw kon sëriñ Abibu ak ñi nga àndal ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax sëriñ Abo moom Cheikh Sidil moom sëriñ Abdoul Ahad Mbacké mu ngi fi moom yàgg nañoo bokk ak moom jataay bi ci yeneen ak yeneen kon moom it kàddu cant mën naa jóge ci sëriñ bi dem ci moom waaye ay doomam a ngi fi sëriñ fàllu Mbakke moom Alaaji Baara mu ngi fi sëriñ Abdoulahat mu ngi fi sëriñ Abo mu ngi fi euh, ñooñu ñëpp sëriñ baa ngi fësal ay kàddu cant ak i kàddi ngërëm jëmale ko ci ñoom sëriñ Cheikh Ndiaye Joor mu ngi fii ci barab bi moom it ànd ak sëriñ Modou ak ñi mu àndal ñëpp kon sëriñ bi gis na seen teewaay sëriñ Cheikh Mbakke mu ngi fi moom it sëriñ Aliou Guèye di sunu baay moom ñoo bokk bis bi waaye dina ko jëmmal jëmmalin wu rafet kon moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax sant ko ci li ñu bokk dafa mel ni sax moom moo waroon na sante sëriñ Jaxate noonu mu ko waxee sëriñ Moustapha Xaadimul Xadim noonu mu ko waxee rek kon noonu la yàlla nañu yàlla defal tawféex ba loolu nga xam ni lu sëriñ bi def rek lu yàlla def ci jaamam ñi ñu nangu ko sëriñ Abdullahi Silla moom sëriñ Mbàkke Silla moom it mu ngi fii euh, monsieur le maire moom mujjee la ci kàddu yooyu barab bi dañ koo bokk sëriñ naa nekk fi du suñu kilifa nga bokk ak moom barab bi ni ko jàppee nag yëg nañ ko barab bi nag xam nga li ko li ko sanc barab bu biitee barab fenn fu nekk xam na la fa war a nekk la fa yell ndax loolu moo tax ñu wuti maire bu dul woon loolu mën nañoo yem ca préfet ba walla ñu yem ca gouverneur ba waaye dañoo bëgg ñu gën a jege population yi Kër ma ak Badar nag bu fekkee ni Badar gii ñuy wax foofa la foofa foofa la sëriñ bi mu ñëwee jege jege kër Madiop gis ni foofa la fa nekk jubawut ak li mu yor mu ñëw fii kon yéen waru leen a wumpale kër Madiop waru leen a wumpale gi kon kàddu yi dégg nañ ko waaye dañu leen ñaaxaat ci barab bi ndax xam ngeen li nga xam ni moo yitte ji fii moom lislaam a ko sanc moo ko samp moo ñor moo ñor sëriñ bi li fi nekk nag mooy jàng ak jàngale ak yar njaboot kenn ku nekk xam nga ni ku yorug njaboot am na lu la ca war kon bu ngeen di am lu ngeen di def taluñ loxo kenn nag ndax yàlla rek la ñu yaakaar waaye barab bi dafa bokk ci barab yi dafa bokk ci barab yi kon li ngeen di def ci barab yëpp li ngeen fiy def yëg nañ ko waaye na ngeen fexe ba seen loxo gën a dugg ci barab bi ba ñëpp yëg ko loolu nag du doon seen sag yéen rek waaye day doon sag ndax fii dañ ko war a yëg ñëpp dañ ko war a xam barab bi kat bari na ñoo xam ne boo leen fi invité bu ñuy bu ñuy ñëw duñu xam nu mu mel bu ñëwee ba egsi nag ba toog ci tànt bi dinañu xam ni ah ndekete ndekete ndekete dafa mel ni dangay jóge ci benn dem ci ñaar fukk ndax day kawe seen njort tur wi ëpp na jëmm ji waaye jëmmi biir ji ëpp na jëmmi biti ji kon na ngeen bokk ci ñiy jëmmal jëmmi biti jëmmi biti ji loolu rek mooy sunu kàddu sunu diggante ak yéen xam nañ yéen a ngi ciy def li ngeen mën te xam nañ it décentralisation bi indi na lu compliqué ci yéen waaye la ngeen man ci seen kattan lu muy tuuti tuuti nañ yëg seen loxo ci barab bi te bu ngeen ko defee du ngeen ko rëcc ak barab bii ak barab yu mel ni ñoom ndax ñii fi nekk kat di ay tuut tànk état bi moo leen taxa war a taxawu te dafa mel ni mbir mi dafa féete boor dafa am ñu ñuy defal am ñu ñu bàyyi ñi bëgg jàng diine bëgg jàng alxuraan bëgg defaru ca na mag ñi defaroo dafa mel ni ñeen a bàyyi fële li alal yi nekk ci réew mi ñoo ko moom nit doomi réew mi ñoo ko moom te nit ñi nag jàngi nañ fii lañ jóge badar gii ñii jóge ñii jóge Kër ma Madiop ñii jóge feneen ak feneen yow mii foofu nga jóge jàngi nga ba sori ñibbisiwaat kon nit ñi xam nañ ñi fi nekkoon ñu leen di lëndëmal ñëwaat nañ fi yor lamp bët yu leer nañ kon alal yi fi nekk xam nañ ñi ñoo ko moom ñoo ko dajale kon nañ ko delluwaat ci biir doomu aadama yi nañ ko delluwaat ci nit ñi te nit ñi nag lañ leen di dimbalee mooy seeni soxla am nañuy dépense soxlawuñu loolu li ñu soxla mooy li nga xam ne état moo ko mën a def barab bii kat ku fi ñëw di nga am ay coono loolu état moo ko mën a def loolu kon nañ ca jéem lañu man courant ngi fii Kër ma Madiop barab bii xam ngeen li fiy daje bari néew na ci gox bii nga jiite barab bu mel nii bu mbooloo mu toll nii di daje bu dul dara lu dul sec bu dul sec bu dul question wu sec dara lu dul sécurité rek jar nañu investir alal ju baree bari indi ko fii ci dëkk bi ngir courant am fi ak leneen ak leneen kon loolu nag ndegam yaa fi teewal ñoom ñi ci des ñëpp gisuma leen yow lañ koy yóbbante boo demee dajeeg préfet na nga ko ko wax perefe bu ko mënee jàllale keneen mu wax ko ndax loolu kat yittee la ju war a am ci dëkk bi bu ngeen ko fi deful nag ay yeneen i loxo dinañ ko fi def loolu nag waxuma la yow waaye état bi laay wax ndax li may wax nii damaa xam dañ koy filmer te ñëpp koy def buñ ko fi deful ñoom ñeneen a ko fiy def ndax loolu wóor na mën dina fi am bi El di taxaw fii ñëpp di yori sàkket mu taxaw fii ni fii dinañ dem ba sàkket génn fi ba yu baree bari seen i pas-pas eggoon na ci ñu weddi ko fi jógee léegi fukki at nangam la yaakaar naa ni léegi mu dañ fi waaw kon nag li fi def lu fi dindi loolu moo fiy def leneen nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi leen sant bu baax a baax nag sëriñ bi kàddu yi nga jëf ji ngeen def muy tolloog seen man-man gis na ko bu baax a baax kon ñu ngi leen ci sant bu wér a wér a wér waaye lii ma lay wax kàddu la yoo xam ne dañoo bëgg ngeen jàllale ko ba ñi nga xam ne ñoo yor kàttan gu ëpp loolu ñu indi ko courant bi mënta ñëw ba Kër ma ñu bàyyi fi Badar bu ñu ko fi indiwul ñun dinañ jël suñu alal def ko fa loolu kat nag yaakaar rafete noonu waaw moom bu soobee suñu borom dina fi am noonu rek lañ koy waxee kaddu yi nag léeg-léeg du du neex lool waaye noonu lañ koy waxe dina fi am léegi ne dañoo bëgg mu jaar seen loxo ndax loolu tawféex rek la mooy tawféex yi sëñ tawféex jooju sëñ Muntaxa di wax kon kàddu cant yooyu mu ngi jëmaat ci dayre yi nga xam ni ñoo fi nekk daayira bu Dakar daayira bi nga xam ni mooy ahlu badar shérif ak ñi mu àndal jiite ko daayira Touba daayira ahlu badar Kaolack daayira ahlu badar Tëngéej daayira ahlu badar Badar daayira ahlu badar Kër sàmba ak daayira ahlu badar yépp ak képp koo xam ni soppeb ahlu badar nga sëriñ bi dugal na ci biir dugal la ci biir cant googu daayira ahlu badar ba nekk Cees te sëriñ di ci def taxawaay bu rafet ñooñu ñëpp it ci biir cant googu lañu dugg ak ñi ma tudd ak ñi ma tuddul te ñu bokk ci biir daayira li may tëje nag ci cant gi li may tëje nag ci cant gi mooy mbokk yi mbokk yi nag li tax ma mujj leen mooy dañoo bokk mbir mi mbokk yooyu ñu njëkkee ci waa kër sëriñ Abdoulaye Guèye dégg ngeen leen fi dégg ngeen leen fi léegi bi sëriñ Saliou di nettali histoire bi dafay xam naa jataayu xataayu jataay bi moo tax waaye mën nañ ci wax lu yaatoo yaatoo yaatoo te loolu dafa mat a wax dafa mat a leeral ndax ñi fiy ñëw di fi mën a yóbbaale dara sëriñ Abdoulaye bokkoon ci njabootu sëriñ Mayib waaye samp suñu borom rek moo am solo njabootam googu mu yor nga xam ni génn nañ fii sax dem lu sore sore ñoom ñëpp koo ci dajal ndekete ci loolu rek la yëngatu muy lislaam jooju nga xam ne moom la sëriñ bi sëriñ nga xam ne koo ci gis sax bëgg fonku bëgg bokk ak moom kon loolu dafay samp bu wér di samp suñu borom kon sëriñ bi yëg na ni yéen ak yéen ak moom yéen bokk bis bi kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax li ci topp mooy njabootuk sëriñ Mortala sëriñ Moustapha jiite ko sëriñ Xaadim nekk fii di chef de village bi ñu ñaanal ko suñ borom dëgëral ko taxawal ko ndax moom kat wétal la ci barab bi moom mii bi fi sëriñ bi nekk néewaan nañu xamoon ni sëriñ Mortalla moo ko jur ndax ni mu ko defoon fu mu daan yónnee moom lay yónnee gàmmu gi fi sëriñ bi mujjee gàmmu ci zahir maa moom la boole ñu toog mu ni ma gan ñi fu ñu dugg yéen leen fay dugal nga xam ne ku ñëw xawma leen moom mii moo leen xam mooy ñëw ni ma diw sàngam ñu ut ñuy tuñ tuñu ut fu ñu leen dugal te boobu kat ñaari néeg dong nga fi nekk waaye ku fi ñëw dinañ fexe rek ba teraa nga am ba ba ba nga delluwaat nga xam ne ñu bari bu ñu ñëwee ñaari minute lañ fiy def duñ mën a am fu ñu toog ñu génn dellu ba mel na ni suñu borom mu ngi saafara mel na ni eggagul fa ñu fañ ko bëggee waaye mu ngi saafara kon moom it nañ ko ñaanal suñu borom dëgëral ko cant googu ñu koy sant it njabootuk sëriñ tay ba sëriñ Cheikh jiitu ko di ko sant njabootuk Alay sëriñ Gueye ndax mën nañ leen a sant sax waaye xëy na rafetalu sëriñ bi rek ci lañ koy dugal kon ñu ngi leen sant bu baax a baax njaboot googu nag soxna mi doy na ci sëkk aw tur pas-pas bi ak ak yéene ji ku ne xam nga ko loolu nag nun réew mi dafa am nu mel dafa tuuti lool dafa tuuti da ngay yàgg rek diw ni la ah diw sàngam diw xam naa diw sàngam kon yàlla nañu yàlla dëgëral ba ba ba tax toogaay yi rafet waaye soxnaam yi jataay bi dafa rafet Touba dafay dëkk bu doy waar ndax dëkku sang la dëkk ñu nit ñu baax lañ nekk nekk fa jigéen jaxasoog nit ñu baax ñi ba ñu lay tudd fu baax fenn fu nekk fu baax fu ne boo fa demee nuyoog sëriñ bi bu ngeen yàggee jaxasoo mu xamanteek soxna amité lu baax rek la ñu xamante jëfalante lu rafet kon loolu cant googu war naa jóge sëriñ bi jëm ci yow ndax bu meloon neneen mu jaaxal ñu te du du mën a toog fii jataay bi nag gis nga li ko neexal jataayam bii mu am fii ci Badar li ko neexal mooy njaboot gi ñu ci ëpp ñi ñoom ñëpp ñu ngi ci lañ war a ne yàlla na yàgg waaye nag soxna bi soxna si jataay bi rafet na loolu foofu nga nekk yàlla na yàlla na yàlla na borom dëgëral foofa loolu nag ñoom sa sa rakk yu jigéen yëpp ñoo ko moom ñi ci nekk ci kër ak ñi ci nekkul ci kër ñi ci nekkul ci kër suñ borom defaral leen borom kër yu baax yoo xam ni li ma doon wax léegi nag dama ci def exception ñoom nag dama bëgg ñoo xam ne dañu mën a defar liggéeyal Xaadim Mustafaa ndax ñu yor leen ndax ñoom dañoo am yéene yu rëy day góor ñoo xam ne dañoo yor taxawaayu taxawaayu dañuy jigéen ñu yor taxawaayu góor su ma leen waxoon ñoom ñii kenn ku ci nekk pas-pas bi nga am ak liggéey liggéey bi nga def ci barab bi gàmmu gii li nga ci def ci taxawaay day mel nii am na ci ñun ñoo xam ni liñ li ñoom ñii liñ ci def ñun defuñu ko ci kon seeni pas lu rëy la sëriñ Ousmane sëriñ bi wax na ma ni loolu nga xam moom ngeen di sàkku may na leen ko loolu nag la ma cay njëkke mooy man maa koy jiite luñ cay def maa koy def ku yor sa dërëm na nga ko téye bu soobee suñ borom nun noo koy ganale waaw sëriñ bay jàpp bisam ñu jiitu fa la fa war a def lépp dinañ ko def bu soobee suñ borom nañu suñu borom dimbali rek ba ñu fekk bis ba loolu rek lañ koy ñaan li ci des nag mooy lu ñu am rek lu ñu man